Baye Fall ñu ngi lay ziar. maa delloo ziar laal yoon. Baye Fallu ak lam Sénégal Baye Fallu Gandiaye Baye Fallu Thiès mbokkum ndeyum Galas Bébé Lirou na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana. waaw allahumma amiin yaa ñu ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu waa wasaare yëpp laal yoon di leen wax ne dal leen ak jàmm ak lam Sénégal moo woote tey gaa yëpp ñëw <coughs> wuy si vraiment tey suñu xol dafa sedd yàlla xam na ko. surtout ci sama doomu ndey boobu nga daane ne Galas maa ngi koy ñaanal suñu borom xare ko ci àjjana yi gën a kawe daa ñoo àndoon ñëw. ànd ñibbi maak moom ren man kese maa ñëw moom mu dem moom nekku fi maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd yaa na ko gënal fi jógee di ko ñaanal baax vraiment saa yu ma yëngatoo ba sama xel daj ko rek wallaay sama xol day sori mais nag suñu borom mooy bindee noonu ay mbiram ñaan rek la dese ñu koy ñaanal ñun waa Ahlou Lamb yaa na ko yàlla yërëm jéggal ko taxare ko yaa janay gën a kawe jërëjëf ah, ah Baye Fall Gandiaye yow mi nga xam yaa res décoration yi si bis bi nga nekk ci koo xam ni tarkaal macha allah fu ñu jugee nga jóg ànd ak waa Ahlam Sénégal ànd ak président Abdou Koma ngeen di doxal lu bari yaa demoon waxaale wu nag bi nag bi moom tarkaal macha allah maa la si a xéewlu nag waaw waaye nag démb ñoo war waroon ngaa fanaan si yooyu yëpp dañ la koy tey si bis bi ak décoration yi nan la war a tëddee. waaw maa ngi sant rek bu baax a baax comme li may wax rek di sant waa Ahlam Sénégal di sant Abdou Koma di sant président Alfali Euh, Grand Ambulance ñooñu dañoo nekk ay acteur ci biir axlu laamu Sénégal saa yu axlu laamu Sénégal soxlaa lu ñu jàpp dañ koy bàyyi wallaahi mënoon nañ ne yëfi mbooloo la xam nga duñ ci def ñu ci war a def wala nangam mais saa yu axlu laamu Sénégal soxlaa ñoom ñooñu noonu dañuy jóg bàyyi li ñuy def yëpp wallaahi lancim anti jeeg Pastef gu mat sëkk bi axlu bi axlu laamu Sénégal jàppee journée bii muy le 8 ba léegi kenn amu ci jot chaque jour ñu ngi ci àll bi ginnaaw gànjaay lañ jëndee ji nag muy njabel ñu wëraat di soxla gars ku ñu soxla kër géegi yëpp dañu dagg seen ité ñëw di dox loolu noonu muy Abdou ak Alfali ak Grand Ambulance ñu ngi leen di santaat bu baax a baax di sant waa Axlu Lamb Sénégal yëpp waaw waa Axlu Lamb Sénégal comme ni ma koy waxee chaque fois man dama leen ameel cant ndax mun naa ne maa bokk ci bokk naa ci ñi gën doon xale ci axlu Sénégal ñu jégati liggéey bu métti bu rëy teg ko sama kaw kon nag du ma ko defee lu dul sant yàlla confiance boobu ñu am maa ngi leen di ñaanal suñu borom yàlla bu ci dara tas confiance dañu am tax ñu jox ma liggéey boobu noonu mbëri maay coordonné ak ñoom wàllu décoration bi dañu lii la ñu def lii la ñu def di santaan mbëri nag bu baax a baax ndax ñoom it ñu ngi may jàppale ci liggéey bi ku ma ci contacté da may yombalal affaire bi lu ma soxla da nga may informé bu ma la soxlaa sax pour ñu gisee da nga may yombalal loolu noonu kon nag aw comme ni ñu ko waxee rek ak laamu Sénégal daaw dafa ñëwoon pour eh, commencer première eh, eh, journée am daaw bi ñu ko defee dañoo décoré mbër mi ëpp drapeau muy benn mbër mu doonoon ordinateur daaw deuxième bi muy poids légers ñu jëloon kenn muy ki ëppoon drapeau ci poids légers yi muy Ndiol Géant ak laamu Sénégal comme dañ a ak laamu Sénégal bëgg nañ mu am ay jéego daaw bu ñu fa jógee ñu ne leen déwén incha allah danañ jël les trois leaders ñi jiitu ci poids lourd yi trois yi jiitu danañ leen jël décorer leen ren ñu ñëwaat mu dans sens ordinateur premier deuxième nekk Radiakhé troisième nekk euh, ki nga xam ne mooy Toubacouta ñooñu ñu fas yéene leen décorer fii. ñu jëlaat ñi nga xam ne nii mooy ancien leader lañ bëri nañoo seeni seen mag ak seeni i morom ak muy diggante ki nga xam ne nii mooy euh, Mamady Ndiaye bu Joal ak Seeku. ñooñu ñu war leen a décorer waat fii nii ak làmb Sénégal daal liy taxawam li objectif am mooy jëmale làmb kanam surtout lutte simple ndax ñun ci lutte simple lañ misé wu comme ni ñu koy waxee. li ñu dal nag dal mbëri dal ñëpp nu métti ñu muy coronavirus bi nga xam ne duggoon na baare lépp tax na ak làmb Sénégal fippu ne ren incha allahu taala bokk nañ ci ñiy ubbi saison bi. ren bokk nañ ci ñi ibbi saison bi danañ teg mise bu baax suñu jógee fii incha allah dinañ réunion déclaré gars fan la ñu ubbee suñu saison ak mise bu baax incha allah pour mbër yi a yëg seen bopp ndax affaire bi daf ñoo tuuse ndax mbër dañoo toog lu yàgg bëriwuñ waaw loolu daal bokk na ci li ñu gën a euh, ño ñoŋal ko siiwal pour gars yi jot ci information boobu incha allah. jërëjëf cant ak ñu ngi lay sant bu baax laal yoon di sant waa wasaare lamb yëpp di kontaan di